ah la la ilaha illallah gaa ngi nii waaw ah, yaay Serigne Touba nag bu la neexee nag ñu ñu doon lu nekk ñoom ñii ndax man nga ko kon nag bu ñu sañoon nga génne ci ay milliards génne ci lépp ndax lu ñëw rek yow la jëm si ndax daraam du la génn bu soobee yàlla waaw daraam génnu la kon nag nee na nga ñaanal ko bu baax lu mu man rek ren moo am man ko lu ko ëpp déwén ndax lépp lu mu am rek yaa ko moom waaw maa lay siyaare bu baax di la ñaanal na nga yàgg lool te ba li nga bëggee liggéey sëñ Touba nga am def ko lu kawe sa njort bokk ko sa njaboot ak ñu ak ñun mu fas yéene topp sa gannaaw nag la liggéeyal Mbàkke Bàlla ndaxte eh, sëriñ Touba Cheikh Ibra fi nekk te yaa ne ko woon maay sëñ yaay Cheikh Ibra te loolu ñu ngi koy ñu ngi koy séentu ñu te ñu ngi koy gis te it ñu ngi teg suñu loxo teg suñu suñu xel fas yéene xam ne na bis de dina ñëw kon nag lépp nga daal ñu daal ñu ngi sa sa kanam daal ñu ngi leen nuyu di la siyaare daal la wax na ne daal yaay léppam njabootam a ngi nii yaa moo ngi nii amul lu ñii nag waaw bu sañoon na nga ñaanal ñii mel lépp ndax lu mel rek fu mu mën a fu rek dina ko weesu te lépp yaa ko moom waaw. macha sëñ Tuubaa na ko ñaan te nangoo na ko noonu. dégg nga ni ko ñaan sëñ Tuubaa ko ñaan te nangoo ko noonu. def na ay jot na kàddu. alhamdulilah alhamdulilah incha allah naa sëriñ bi mu ngi leen di nuyu bu baax. di jiital ci nuyoo bi. kilifa ga ngeen bàyyi ko. ah sëriñ bi di yóbbante kàddu cant goo xam ne da koy seereel soxna sii ak njaboot gi sëriñ bi nag xolam sedd na guy xelam itam dal na bu baax ndax nii rek la ko bëggee. ndax nii rek la ko waxee woon waaye nag ñu xam ne lii ab tàmbali rek la ndax dafa mos a ñëw fii mu ne ko yowee Seex may maay sëriñ maay sam sëriñ Touba nee na doxin woowee saa yu da koy gën di dox rek di ko ànd ak njaboot gi waaye xolam bi li sedd sedd sedd ci jëf ji day am jëf ji ko gën a seddati ndax nit ku nekk sa bopp dalaa jege lool te soxna Njóoba mii di boppam di sëriñ bii am lu ko sëriñ bi digalan moom sëriñ ba ci soxna si sëriñ bi nee na def na lépp lam ko ci digal la lépp nee def na ko kon soxna si sëriñ bi ne mi ngi leen nuyu bu baax nee na na sam xel dal bu baax ndax lam law xam xam nga ko xam na ko gisa gisagoo ci dara da ngay soog a tàmbali rek saxal ci ndigal te moytu ay tere nee na soñ sax waaye nekk ko ci lenn lu ñuy tere kon sëñ bi nee na kàddu googu la jëme ci yow di la soññi rek na xam ne wàcc nga ndax sa maam ju baax ja nii la àndee nag seexul xaddiim ca Mbàkke Kajoor yow nga ñëw àndaat ak Seex Ibra ñëwat àndaat ak Sëriñ Tuubaa sa sosi moom doon seenub làmp di leen war di wane yoon kon sëriñ bi neen na sa dal bu baax mi ngi ci sa kanam mi ngi ci sa ginnaaw doo jàq mukk doo tiit mukk ndax li ngay tiit li nga ragal dox na sa digg loola sëriñ bi nag noonu la ko waxee noonee la ko waxee sëriñ bi ndax nee na sëriñ Fallou day sëriñ bi daf koo jege lool ndax day léppam magama sëriñ ma am sëriñ Tuubaa ma sëriñ Fallu jàppe ko magam jàppe ko lépp waaye li ko gënal te gënal sëriñ bi te gënal euh, nee na itam di ko xool ca sëriñ Fallu mooy taalibe gim ci xool ci moom di ko jàppe Seexul Xadim nee na loola dara desu ci te loola ci la namp nampatal njaboot gi ànd ak moom ndax sa yu ñëwee fi moom la ñuy andi fi moom mooy ëpp jëfi daaw ja ëpp jëfi daaw ja ëpp jëfi daaw jeeg ja mu ne nag lii ab tàmbali la leen dara ndax Cheikh Ibra mboolem li Sëriñ Tuubaa yor Cheikh tibb na ci tibb boo xam ne kenn tibb ko ci waaye la ci Cheikh Ibra tibb Sëriñ Fàllu mi ngeen àndaat dana tibbaat ci biir Cheikh Ibra tibb boo xam ne dana ko ànd ak ñii ci tibbaat tibb boo xam ne dana ci ànd ak yéen ab tib nag bu rëyee te ba li ga koy jàllale baaxut da ngay fot sëriñ bi nee nag mooy léppam tibba lu mu rëy rëy dana ko jàllale ci bisimillahi ram àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina àggala bëgg sëriñ bi ne dana àgg ragal njaq njàqare la bëgg sëñ bi ne dox naag la mu ragal dem la bëgg sëñ bi ne mi ci kanam mi ci ginnaawam kon fa mu jëm dana fa àgg te ànd ak njaboot gi sëriñ bi nee na mi ngi leen di bu baax ci ak taalibe ndax ki ngeen di tudd ba ba ngeen dugg ci bii nga xam ne ku tudd laa ilaha illallah sa xel dañ ci maam Cheikh Ibra nee na loola ay jëfam na ngeen roy bu baax Cheikh Ibra danaa wax ne a ah, ndigal day saa yu duggee ci noppam taalibe caabi lay doon bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi kon ngeen sax ci diglu ndigalu euh, Serigne Fallou mii leen yàlla booleel ndax njaboot gi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima yilif Serigne Fallou bokkaat ca ngeen bokkaat ca googu njaboot Serigne bi nee na bëggut bu ñu àggee fa jofale di fa fay jëf yu baax ya Serigne Fallou di fa yéesle tey yéen ñi yéen a ko mën a jàppale kon li mu bëgg ci moom ci yéen ñi la ko mën a jaarale ngeen sax ci taalube sax ci ndigal di sose fi moom fa ngeen bëgg a da ngeen fa àgg te du ngeen amum ndok sëriñ bii di sëriñ Touba nag di sunum sëriñ Touba ku wax na da nga àgg doo amum ndok war nga koo gëm kon yéen it nga xam ne da ngeen sax ci tuur ci baatub laa ilaha illallah boole koog togg ñam di ko jébale ci weeru koor wii su ngeen ñaanalee sëriñ bii aw fanam dana gudd te dana te dana mucc ci ndog te ngeen ko ñaanal ki seen i xol na kenn ku ne ñaan cëpp xolom wax ci làmmiñam na sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké yàlla na gudd yàlla na aw fanam gudd ta tam taw ànd ko wér kaddu gii la sëriñ bi ne woon nan leen ko jottali ñu yóbbaale ko nii ngeen def nag taxaw ci biti bi mu toog fii laata laata ngeen di ñëw dafa wax ne xelam dafa dem ci xissa bu ñu ko daan le boo xam ne lu wér la ndax dafa wax ne maam Cheikh Ibra su ma saa indi addiye ci kër maam ji bàcc Cheikh Ahmadou Bamba boo agsee ba boof ñam ko yoon dafa leen naan kees gu ngeen mujj dégg ku baax ki ñu ne ko kees sàngam ñu fab addiye jëli ci biir daal dëppaat da sëñ bi daal di seen maam Cheikh bi daal di wax ne addiye ju Cheikh ju sëñ Touba dégg fañ ko sànni moom a gën a jum teg bët ndax wóor na ma cib loxoom lañ ko sànni ci loxoom la dal kon sëriñ bi nee na addi jii ngeen andi ci loxob sëriñ Touba ngeen ko teg dana leen ko denc fa yàq agut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun nag li ñu ciy teg nag ci kàddu yi gàtt mooy liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëñ Fallu mu jógee kër Seex bi jëm kër sëñ Touba jëmm ji nga xam ne moom la ñu indi liggéey bi ñun ñëpp ñu ngi ko ciy fasal sunu borom defal ko ci gudd fan gu ànd gu wér njaboot gépp ba yéene ji mu am ci liggéey sëriñ Tuubaa maamam ja ak waajuram sëñ Cheikh Soyibu suñu borom lépp matale ko mu àggale ko te mu dund ba doon jëriñ ñi sëriñ Tuubaa yi ànd ak wér gu ànd ak wér la ñun ñëpp ñu fekkatal ko barke sëriñ dama koy wax moom mii waxtu wu ne ndax dafa am ci ñu baax ñi koo xam ne ci magi sëriñ Tuubaa la bokkan waaye weeru koor wi saa yu saa teru diitu jël bitalab saafara di ñaanal ab taalibeem taalibe bu ñëw tawat ko yitte ca ñamu Baay Faal wa lay jël def ca saafara sa jox la nee na ñamu Baay Faal man naa saafara sa jëpp jàngoro loolu la sëriñ booba daa wax te kooka sëriñ Touba ko yar yar ko ceen jolof yaraat ko ci Touba gii ñam ba nga xam ne sëriñ Fall moo ko daa yónnee ca kër sëñ boobee su mosaa su su ab su weer koor mosaa teru ku ko tawat jàngoro sëriñ ba du la ñaanal ci ñam wi lay jël def ca saafara sa jox la nga naan nga faj loolu nag ñamu Seex Ibra mën naa tab mën naa faj jëpp jàngoro kon mooy ñam wi rek alhamdulilah alhamdulilah jërë ngeen jëf son tamit gudd fan gu ànd ak wér rek nangu leen ñaan nangu leen ñaan amin amin amin amin amin amin amin